feebar munta wàlle ludul ci coobare yàlla gaafat amut weeru digg gàmmu du gaafal biddeew mënta wàccee taw waaye seytaane yi mënuñoo réeral doomu aadama yi attatayur lan mooy attatayur ak lan moo tax ñu tuddee ko noonu attatayur mooy gaafal ci looy gis wala looy dégg wala gaafal ay fan wala ay weer wala yeneen yu dul yooyu la tax ñu tuddee ko noonu mooy lay cosaan ci gaafal ci arab yi mu ngi tàmbalee ci ay picc ay misaal ci gaafal lu mel ni gaafal lenn ci ay picc wala bokk ay bàyyima wala lu mel ni baaxoñ wala looj wala muus bu ñuul wala gaafal ko nit ko ànd ak laago wala gaafal lenn ci ay fan wala ay weer lu mel ni weerub digg gàmmu wala gaafal lenn ci ay lim lu mel ni gaafal limu fukk wala limu fukk ak ñett wala gaafal la toj wala gaafal ab mbir mu daanu wala gaafal lenn ci ay biddéew wala lenn ci ay place lan mooy gaafal bi ñu tere mooy bay yóbbee doomu aadama ci mu daal di def wala mu daal di bàyyi amma doomu aadama di yëg ci biir xolam ci li muy gis wala lu muy dégg loolu nekk lu baax wala safaan loolu kenn du ko ci top lu dul nag loolu daal di woy ba yóbbee mu daal di def wala mu daal di bàyyi ndax gaafal dafay jam ah, gëm-gëmu jullit bi aha kay ngir dafay wàññi jaamu yàlla ba tuddoo wéeru ci yàlla ci moom waaye tamit di acc xolam ci keneen ku dul ci loo xamante ne du jëriñ wala du lor ndax gaafal bokkaale bu mag la wala bokkaale bu ndaw gaafal bokkaale bu ndaw la bay safaanoo ak matub kenn la yàlla bi nga xamante ne moom mooy bi war yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne at tiyaratu shirkun at tiyaratu shirkun gaafal bokkaale mu ñetti yoon ci beneen xadis mu ne déet feebar buy tuxu di wàlle ci lu dul coobare yàlla waaye tamit déet gaafal ci ay picc di am képp ku yàlla nattoo ci tàmbaleeb gaafal lan mooy la war ci moom la war ci moom mooy mu daal di tuub dellu ci yàlla waaye tamit sunnaan lañ ci moom mu daal di wax allahumma la xayra illa xayruk wala toyra illa toyruk wala ilaha xayruk naka la julit bi di dàqee ci moom lii di feebarub gaafal di ci jiitu mooy mu daal di dugg ci wéeru bu mu wéeru ci yàlla mu dëgëral tamit ngëmam ci lu jëm ci wala ndogalub yàlla waaye tamit mu xam ni ay picc wala leneen lu dul picc mënta jeexintal ci nguurub yàlla bi déet muy jeexintal ci coobareem